may gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax ni rek dama bëgg a bokk ci ñi nga xamante ne dañoo fekke jamono jii nga xamante ne moom lañu nekk di dundu te bëgg bokk ci ñi nga xamante ne ñu ngi woote pour askan gi jóg taxaw su ma waxee askan gu jóg taxaw nag wax ma askan gu jóg taxaw tey nii ñu toll nii wala askan gu jóg taxaw suba wala gannaaw suba waaye ab xeetu nit ku ñuul buy taxaw ba faw moom laay wax ci loolu la bëgg a bokk ci ñooñu nga xamante ne ñoo ngi woote pour askan gi gën a jóg taxaw parce que sama réew am na benn waajoo xamante ne nee na tubaab yi dañoo yar seen doom yi pour wax leen ni yéen ay nit ngeen da ngeen taxaw bu leen nangu ku leen def taabal bu leen mukk nangu ku leen def taabal teg añam di reer ci kaw wala añam wala reeram muy reer ci kaw arab yi ñu def la même chose ñu ne bu leen mës mukk suufe ñuy teg taabal ci seen kaw ñu ci añee wala di ci reeree kon askanu arab bu leen jaralee dee ba dee pour ngeen am seen liberte na ngeen dee ba dee yéen ba jeex yéen ñëpp ndax ngeen am seen liberté loolu moo waral Amérique ba mu duggee Amérique ba mu duggee araab yi dafa mujjee daw jénn te loolu moo waral Hitler ba mu buggee fooyee tubaab yi dafa dañ dafa mujjee daw jénn ba ñu rey ko parce que askan la goo xamante ne dañ leen a yar ne leen bu leen nangu mukk kenn toog seen kaw te ci ñun loolu la ñu taxaw pour ñun nit ku ñuul ay doomam ak ay sëtam ñu mun a xam ni bu ñu mus a nangu mukk ay nit di toog suñu kaw parce que loolu ñun nangu nañ ko suñuy maam nangu nañ ko suñuy sëriñ nangu nañ ko loolu moo waral nit ku ñuul ci réew yi ngeen di gis yëpp nit ñi daal di wàcc sëgg ñuy dox seen kaw loolu dañ ko war a dëj teg fële ñu jog taxaw bu ñu naree développé waaye boo leen seetloo sama askan xool leen réew yëpp yi ngeen xamante ne anglais yi ñoo leen coloniser réew yooyu yëpp dañuy organiser seen élection yu sedd kuy falu falu affaire bi continuer réew réew yi nga xamante ne Angleterre moo leen coloniser yëpp ci Afrique noonu lay demee élection day jot ñu dem ñu dem def élection noppi ku gagné mu dem waaye sama askan seet leen réew yi nga xamante ne France moo leen coloniser réew yooyu bu jotee élection bu jotee dañuy tëj dañuy rey dañuy blessé lu waral loolu mooy France mooy nekk ci ginnaaw di di digal li nga xamante ne mooy ka jiitu ca réew ma la mu war a def ci réewu Afrique yëpp yi nga xamante ne France moo ko diriger lay demee réewu Afrique yi nga xamante ne France moo koy diriger mësta def élection yu sedd bu élection jotee dañuy rey nit ñi dañuy teg nit ñi dañuy dañuy dañuy blessé nit ñi loolu lu ko waral parce que France dafay dund ci médd ci ay cadavre lay dund ci ay néew néew yooyu nag mooy waral ñun ñu sëgg néew yooyu France di provoqué mooy waral ñun ñu sëgg doon ay taabal ñun ñooy sëgg ñun ñëpp réew mi askan gi yëpp ay sëgg tëdd France lal tableau ci kaw teg ay bombongom ak ay lekkom ay suppu kànjewam ak ay banaanawam si suñu kaw ba pare daal di teg benn toile toile bi daal di doon mooy darab bi ñuy muuree taabal bi teg ay lekkom ci kaw ba pare toog di lekk suñu kaw loolu nag ñu dundee ko depuis 1960 ba sama askan tey da ngeen a comprendre ni ñun munuñu munuñoo continuer di nekk taabal. sama sama askan tey ñun comprendre nañ ni munuñu continuer di sëgg France di lal ab taabal suñu kaw di lal si ab taabal suñu kaw di ci teg lekkoom ñun ñu sukk ci suuf moom mu def ñu ay ay jumtukaay yuy jàpp taabal boobu moo tax si lay jaar wax leen ni sama askan jóg leen taxaw ngir taabal bi këpp sama réew jogleen taxaw ngir taabal bii nga xamante ne ñoom ñu def ay poto ci suuf ay tànku taabal pour ñun ñuy téye taabal ba ca kaw ñoom ñuy toog di reer ci kaw taabal ba jóg leen taxaw sama réew Sénégal ndax taabal taabal bi këpp parce que boo leen jógee taxaw taabal bi dana këpp te da ngeen samp li nga xamante ne mooy seen taabal mooy yéen la ngeen war a dundoo ak la ngeen war a fajoo France dundeewul dara lu dul meddi lay dundee lu dul lépp li nga xamante ne moom lay rey ci askanu Sénégal. waaye jamono jii ñu toll France xam na ni système bi menacé nañ ko système bi askanu Sénégal jóg na taxaw te menacé na système bi ci la France convoqué Karim convoqué Khalifa Sall gis ngeen ko temps yi semaine bu nekk mu ngi France daal di convoqué Macky Sall xamal leen ni système bii nga xamante ne yéen les pantins yéen les maîtres de service yéen les sous-préfets de France de la France ak ñun la France ñun on est menacé système bi mu ngi waaja a màbb parce que askanu Sénégal jóg na kon fàtte leen seen parti politique yi mooy PDS mooy PS mooy APR te ngeen booloo parce que askanu Sénégal fu mu toll nii ndaw yi ak askan gi comprendre nañu fàtte leen loolu yëpp ngeen nekk benn. pour ngeen mën a xeex ak askanu Sénégal ci la mu bëgg ci développement li la France def li la France convoqué pour mën a maintenir taabal bi nga xamante ne daf ko sukkal askanu Afrique ak askanu Sénégal ba pare lal ci kawam di dund di dundee ay médd di dundee cadavre di dundee ay néew si suñu biir askan suñu biir réew moo tax may woote di leen wax ni tey lañu ñu gën a egg ci li nga xamante ne moom lañ doon ut démb tey lañu ñu gën a àgg ci la nga xamante ne moo doom moom la doon ut lañu doon ut démb kon askanu senegal jóg leen taxaw lii ngeen di gis ñu naan ay loi assamble assemblée ay complot la démb ñu def ko Mamadou Dia ay complot la woon ñu def ko ki nga xamante ne mooy Thomas Sankara ay complot la woon démb ñu def ko ki nga xamante ne mooy Cheikh Anta Diop waaw waaye tey nekkatul complot tey caaxaan la parce que complot mooy li ngay def te kenn yëgu ko complot mooy li ngay def te kenn comprendreul waaye lii di xew assemblée nationale gone gu am di setan sax teg na ci ay bët xam na ni lii ay caaxaan la lii doxatul doxoon na ci Mamadou Dia ak ki nga xamante ne mooy Cheikh Anta Diop ak Blaise Diagne astafurlah ak Thomas Sankara waaye lii di dox mënatul dox ci ñun ñun ñëpp ñu ngi ciy teg ay bët te xam nañ ni lii du complot lii caaxaan la. déggoo démb daa di wax ni Karim du bokk déggoo waat démb daa di wax ni euh, Khalifa Sall du bokk gannaawaat suba nga dellu si ki nga xamante ne moom la ñu waxoon du bokk moom tamit ak li nga xamante ne mooy traitisme mooy bonaayam mooy ñaaw xelam mooy bokk ci système bi moom tamit mu fàtte lañ ko tëjoon ak lañ ko mugaloon moom mu dem ànd ak ñooña moom xalifa Sall ma ñu tëjoon ak Karim Wade ànd ak ñooña ñëw ànd ak Macky Sall pour def li nga xamante ne moom lañ ko defoon nga xam ne ñooñ duñu ay nit du complot ay caaxaan la kon askan gi jóg leen taxaw jóg leen taxaw lii dafa egg ci feewam la egg si talam la egg caaxaan gi lii nekkoon complot ba tey mu nekk caaxaan dafa egg si jeexantalam lii ay caaxaan la lii ay caaxaan la suñu jógee taxaw benn luwaa du fi taxaw luwaa yi ñu taxaw ñu naan ay luwaa la du luwaa bis bu askan gi jógee taxaw lii leer ci ay seconde lay def te gëm naa ni askan gi dina jóg taxaw man la Arya Basit fii ci Angleterre di leen wax dinañ ci ñëw mu gën a méttee ak ci ni mu gën a claire